fils quoi ñëpp japp ni site internet bobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew ne ko euh, coordonnateur plateforme COSER euh, départemental de Rufisque euh, en même temps nekk chargé de mission au ministère des finances et du budget tay ji yalla dafa def dañu amone initiative bo xamné tay le 23 juin yaakaar naa ne peuple sénégalais bi yëpp ñu ngi sur le terrain waaye tamit ñu ngi fàttaliku bis bi nga xamante ne date historique la bi nga xamante ne nii tey jii euh, dugg na ci agenda politique du Sénégal muy euh, jàlloore yu mag yi nga xamante ne population bi jógoon nañ ko taxaw ko euh, ba xeex ba démocratie bi nga xamante ne naroon nañ ko perte ñu amaat ko à 100 pour cent balaa ñoo dugg juste si biir li nga xamante ne moo ñu wax dañuy jaale le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ki nga xamante ne nii mooy patrimoine bi nga xamante ne nii nit ki nga xamante ne nii tey yaakaar naa ne ndamu Sénégal gépp la muy l'ancien maire

sant ñëpp di gërëm surtout la population du département de Rufisque euh, tey jii la jeunesse républicaine euh, de son excellence monsieur le président Macky Sall initiative bi ñu amoon si journée bi mooy ñu dajaloo ñun ñëpp euh, fédéré suñu ay force wàcc sur le terrain jël journée bi def ko defin boo xamante ne lépp ci ay actes citoyens lay doon si dañ koy posé muy distribution de détergent ay gel ay eau de javel ay madar ak yëpp yi nga xamantene ne am nañ ko benen bi nga xamantene mo ci si des it euh, sensibiliser waale en même temps population bi ci mbas bi nga xam ne am na fi parce que bu xolé les derniers résultats yi nga xam genn na dañuy rek dañuy confirmer né fièvre bi tay la gën am doore té war nañu taxaw xeex lolu mo tax euh, ñu juróon ñetti point muy parni euh, ci si suñu jigéen fi nga xam fa lañuy ñuy nekk di fa daana seen doore les 5 C muy ñu ñu situé woon bari ñi jël jëm ñaajo aussi ñew ci garage bi Euh, si district bi am na ay matériel yu ñu fa yóbbu yëpp euh, bu ñu paree ñu dem au niveau de Sangalkam si centre de santé bi nga xam ne moo polarisé les quatre C yi nga xam ne mooy commune de Bambilor commune de Niaga Tivaouane Peulh ak commune de Jaxaay ak commune de Sangalkam yaakaar naa ne lu initiative bi loolu la woon euh, ñu ngi rafetlu engagement ak détermination bi nga xam ne département de Rufisque bi am na ko sa jeunesse derrière le président de la République monsieur Macky Sall foofu le constat naa unanime ñun ñëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla depuis ñu allégé li nga xam ne mooy mesure barrière yi gis nañ ni nit ñi farataalu ñu li nga xam ne sax moo gënoon élémentaire muy port masque loolu moo bokk na si tey jii lu gën a tax sax suñu sensibilisation mën nañ wax ne sax suñu sensibilisation foofu lañ ko accès gis nañ les le troisième âge yi si ñoom la ñu gën a accès xamal nañ leen lan moo tax wax dëgg yàlla sol masque bi ñu war ko def ba léegi

waaw euh, tey jii mënuñu jël suñu activité bi def ko ba pare euh, te duñu am ay remerciements yoo xam ne dañ koy jël jagleel ko suñu ay autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci parti parce que nag ku gis duñu wàcc tey si département bi liñ fi mayee si matériel ak population bi ni ñu taxawee di nga xam ne ñii dafa am ñu nekk seen ginnaaw ñu nekk suñu ginnaaw nag premièrement c'est son le président de la République monsieur Macky Sall FISPOIP jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc lay liggéey ci mim